أما بعد فهذا الذي هو المؤيد لكل من المسلم محسن سعيد واشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتضيه صلى وسلم عليه الله بآله وصحبه ومن تلاه وأوصيكم به وبعدكم بملازمة محجر لكم من الأخلاق ونقله والأقوال والأفعال وبالله تعالى القائل وأحذركم فيه وأعفو عنكم المال قبلكم من العبادة والعذاب فإن اختاره الله تبارك وتعالى وإياه بالسعادة وطوبى لمن لا يقف إلا غير ربه ملازما مخطوب له من يرضي وويل لمن قاله إبليس إلا ما شاء فإنه يلازم من أحسى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتيكم الرسول فخذوه قال تبارك وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلامه في السور من يديه مغلوبة إلى الخير لا إلى الفقر والضيق وإن من لم يحكم على به الملتقى عليه بآله وصحبه سلاما وجاء باللقاء وأوصيكم أيها الإخوان بحكم تفعلوا له الحسد والعدوان ألا تفارقوا مقتل لكم غدا فإن مفارقتكم تجر إليكم على أمر غدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم قومه الصواب فإنه مما يرد إلى ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى إن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العز المعز بالله عبده المني يرسول العز إنما أكبر عن الله تبارك وتعالى إذا سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قال إليه لما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا الله حيث اتقوا الله حيث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل الموت فإنه يشفع فيه عند موت أمته أن من يملك منهم توبة نصوحا وقد أمركم ووعظكم نصيحا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتقدير والإكرام والصلاة والسلام على من خرجنا من كرمة الجهل وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الآفاق أما بعد فهذا يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه المشارك واحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلام بجميع التوفيق فإن هذا اليوم يوم أكمل وشهر ويكفي من فضل من جاد فكرته ومن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يفرح بكل من الخير يستطيع واطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيرا فإنه تبارك وتعالى يغفر لا ويكون خيرا واطلبوا فيه إليه تبارك وتعالى من زلة العصيان فإنه يغفر ذنبه ويقف إلى ملكه الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكتب ما يريد الإجماع بجائزة الغزوات المبدية صلى الله عليه وآله وصحبه إلى القيامة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 ñu si àdduna ak ci suñu kilifa bii toog di kilifa barab bii di kilifa ak jumaa bii suñu maamoo bàq mu ngi ci ginnaaw rek nekkal ko ci ndigalam ñu koy siyaare bu baax di ko dokkeel ci bis bi waaye di ko dokkeel ci taxawaay yoo xam ne nga xam ne ko taxaw ci diin def ci yoon bi ñaa ngi yëg yëpp yëngu yi ak taxawaay yi yàlla di ko barkeel di ko dooleel di siyaare bu baax ndokkeel boole mbokk wala mooy islam yi islam yi nga xam ne bisu barke la bisu lu yàgg lool amoo njaboot su borom baaxee la njaboot nga dem am yaakaar ci moom wala la nangu ren loolu nag lu rëy la waaye ba mu ko nattoo da koo gëm da koo gëm nangu ko moom it li muy doon doon gën a nangu la suñu borom gërëm leen ba sant leen lii muy bisu ay di ko def ak mu ba yomal xew ak ak bari di ko fàttali ko kon gis bu rëy rek wane ne gëm yàlla waaye ñëw rek daf dana moom ndax dëgëral suñu gëm yàlla cale mel yi foofu yëpp gëm yàlla gëm na ko na ko mën a dégg mooy tax boo dégg moo la jariñ mooy tax fii kat ñu am ndar waaye di fàttali ne gis la boo xam ne it bis bu màgg na yonent yàlla Muhammad alayhi salaam nee na bis bii bisu tabaski doomu aadama dafa lu ci yàlla lu gën tuur dara moo dara dañ ciy tuur man xam ne lu rëy suñu borom nee na bu yomal xeem ne gàtt bu ñu doon defar day ñëw yomal xeem indiwaale ay bëjjënam kawaram ay wayam maanaam lépp lu ci bokk dara ci màngi doon sa kaw deret yi boo ko tëree ba nar ne ne balaa deret jëlaal suuf suñu borom na ko suñu borom na ko ba im na dama la yaqaaw man laaj ne kon nag ngeen ci seen xel xel bu ngeen di dëgës ci ngeen ci ànd ak xol bu seen xel xel yàqu leen alal waaye da ngeen jàpp yàlla seen bopp moo tax képp ku man def ko lu am solo la waaye nag yéene ne dara dina tur kon jàppale ci dugub ci xéwal yi ko ren bi ko jariñoo ñu nekk lu mu yàlla la baaxee nga yëriñ ñu ngi nii dañuy jàngal taarix lañ te war a jàngal mais gëm yàlla yàlla yàlla yàlla bind bëgg la yéene la muy naka dañ mat sa ndam na mooy tax yàlla dina tudd ñu maam Ibrahima alayhi salaam yàlla dina tudd kon ci àdduna gaar gaar yi fi gaar day wéré day ñàkk day tiis day fitna boolem yi am dañ jàpp ne yàlla na ak jàmm nag bu ko jiyee am ndam ci rajo mooy day xam ne yàlla bàyyi mu delloo ko yàlla suñu borom ñu tegee ci mbokk yi moom rek moo ko xamee jàmm nag mën naa sawtu mën naa kon nañ sawlu di ñaan yàlla suñu waaye delloo suñu bopp ci waaye mën na ko sa waaye yàlla baaxam ak yërmande moo tax na ne ak yàq am na ci kaw waaye damaa la waaye suñu ngir seet leen ndax ñu mën benn soit maanaam ngërëm yàlla kon yàlla tegul ay nattu tegul a na ko waaye day bëgg ne nag te bu ñu ko déggee noonu dinañ jàng te loolu yëpp suñu déglu jàng Mawlana Cheikh jàng Mawlana Cheikh Moul Khadim radiyallahu anhu ñu tax ñu daje fii ku ne xam ne nag wéyte nañ waaye ànd loolu lépp borom la doon jaamu moom la doon ñaan moom la doon wakkiir moom xam na ne ni ngi koy gis kon lépp lu ko teg daje ci moom ndax moom moom tey ñëpp muy xéewal ci loolu te war nañ ko sant yàlla ci natt yi am ak tiis yi ñu amul bàyyi jàmbar yi bàyyi saal yi bàyyi lu am nga jiwu kenn mbokk yi lépp lu fi am daal suuf am noonu la nag xamal yàlla kon nga sant yàlla ci noonu la bul noo gën a dugg nga ñaan yàlla mu ngay ci jàmm waaye bul gis wala mu mel nen tax nga jàpp ne lii wala waru ko mel moo tax ngay jëmee kàddu yu ñëw ñu ci moom doo am ngeen itam soppi dara te tey am ci bakkan loolu gis ngeen ne fàttaliku yàlla bu dëgër te wakkilu ci yàlla doyloo loolu la suñu wax yaa ngi ne man ñi ñëwoon fi ñëpp ci loolu gëm yàlla bu wóor te doy loo ko wakkee ko ci am moom tam moom tam man moom daal rabi naa ko borom jàkka ji nga xam ne tey saa bu nit yi war nañ ko fàtte ci ñaar gëm yàlla bu dëgër ak doy loo ko wakkee ko te lépp ñu jox yàlla moo ko may yàlla tey jii ndamul islam lool ci réew mi xaw wàll bi ak ñu def nañ ñu ay téeméeri téeméeri dong yoo xam ne ñu jàng xam-xam ba fànn ko ci wàllu yëpp ci ay daara ñu jël ndam loolu nag di wéy suñu maamu ko yëpp yëpp ko yokk sof ci lu bari xam ngeen daara ji moom ci dugg na ci réew mi njaboot bu bari tey génn fenn seen jàng xam seen diine xam seen adduna mën a jëriñ mën a jëriñ loolu moom moom mooy ndam dafa ko ndam lu baax lépp fu ma ngi bàyyi loolu sama tey ngor ak jikko ak ak ak jëf ju rafet ak yàlla bu baax moo ko moo ko téye kon nañu gën a jox yitte ñu ne ndaw ñu yar leen teg leen ci yoon fitna ji am ñëpp ku ci bëgg mu gis woon gudd da nga mën a dem leen ci yoon booy jurit da nga xam ne déglu yàlla ci ñoom ku am fu sa ko wax dëgg naa borom dana laaj wala bàyyi bàyyi loo xam si bopp loolu bàyyi loo xam si bopp yëpp di fàttali ne am na disparité bi daal moo tax ajjuma gaaw ba fajaree ba fajaree gaaw ku julli farat wala lu nañ ci def allah akbar ñetti yoon loolu ci ñu santaane bis yi ndax bis yi bis yi ñu bàkk yàlla bis yi ñuy kañ yàlla kon di wax allah akbar ñetti yoon ginnaaw bi ñu faral ko ne ba man fukki julli ak juróom loolu bokk na li nga xam ne jàll moom alxames ñu ngi ndokkee ñëpp di baal ñëpp ak lu xam ne dara ñaan yàlla sàmm wéral nu musal nu ci mbog yi ak fiir yi jàmmal suñu réew jàmmal réew ak fa yëpp boole mbog yi ak yi ñu ragal yàlla yàlla mosu réew mosu def sàmmal suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ñu ne ci suñu kanam di ñëw ma ci jéegi mbokk yi foofu kilifa moo tax ñu nag yàlla dimbali nag ñu kilifa baax ko ñu leen fonk leen seen gannaaw wéy seen diggam ñu ngi dégg ñëpp fan lañ wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu